waaw ndaje mi li tax ñu def ko tey jii dañoo xam ni ci weeru koor la ñu nekk ndax ñun solidarité dañ koy def toujours bu dul weeru koor mais rawatina weeru koor ñun séjourné nañ fi à l'hôpital régional gis nañu li malade di vivre gis nañu li accompagnant yi di vivre am na ñoo xam ne fu sori lañ jóge su timisee dañuy daw fu nekk pour wuti ndogu léegi nag ñu ne pourquoi pas ñu def benn geste ndogu ñëw jox ko jullit di fi nekk chrétien yi fi nekk ak képp koo xam ni rek nécessité nga L'ol mom motax ñu organiser ko ci wéru koor gi loolu yépp nak pour soutenir le programme du docteur Babacar Diop parce que docteur Babacar Diop su ngeen koy dégg toujours li wax man may président pauvre man may maire pauvre yi gi dolé dal lay défendre moom soxlawul dara pour bopam ñun ñi and ak mom tam soxlawuñ dara pour suñu bop motax ñu juk diko accompagner ci mission Bob mom muy def li nag c'est la première édition ma ci ak sama sœur Adja Ndeye Social Lo mi nga xamni ni moy la coordonnatrice des femmes ànd ceeg les femmes Guelewar ñi ngeen gis fii yëpp ñu liggéey ci pour notre première édition mais ñaanuñu yàlla mu yem fii ndax dañoo bëgg am vision pour près am suñu benn fondation boo xam ni c'est la fondation docteur Babacar Diop nga xam ne li koy tax a jóg yëpp mooy solidarité waa dimbali nit ñi dimbali new di doole yi voilà waaw le 7 avril anniversaire bi la parti la boo xam ne bi mu juddee yàggul waaye nag mag la néew na ci ay at lool waaye nag rëy lool nag ci ay jëf voilà tey la an premier anniversaire bi